bisimilah sëñ maa ngi leen di sant leen gërëm bon di ñaan Sénégal chaque fois jàmm mais nii rek la nii rek lañ dëkkee ak euh, Macky Sall parce que chaque fois su ñu xëyee ci lii la ñu dëgg ñun lii bettu ñu woon bettu woon kenn ci askan bi bettu woon kenn ci askan bi mais li ñu wax rek dinañ demanteeg ñoom ba fi ñu bëgg duñ fa demanteeg ñoom amul liñ ci tiit amul ñu ciy ragal mhm. ñun ay sénégalais lañ ay sénégalais lañ juddoo fii Sénégal gis li génn lépp ci urne yi ak les moyens yu mu def pour Sénégal jëm kanam moom xam nañ ne am na lu mu def kenn weddiwul am lu mu def mais injustice bi nekk si dëkk bi lu waay neex def loolu dafiy dakk dafiy jeex waaw lu ko neexee nag dina tëjal tëjal tëjal tëjal tëjal tëjal ba doyal ñun ñun jeune lañ demuñu fenn waaw Sénégal la ñu am Sénégal la ñu am mais chaque fois mënuñu chaque fois suñu amee problème de justice mu demee nii chaque fois suñu amee problème de justice mu demee nii mais incha allah ñun ci biir mbedd mi rek ba keroog muy def li ñuy wax. bisimilah nga yaakaar fi jeex mënu fi jeex c'est impossible mënul jeex mënul jeex dafa def li ko neex ñu ne dinañ def lu ñu neex incha allah ba keroog li ñuy lu ñuy ñu lu ñu lu ñu suñ kii may ñu jël lu ñu suñ yoon may ñu jël incha allah rabbi recours bi ngeen wax ngeen yaakaar ne ngeen ko ngeen ci am dara non mënuñ ci am dara xam nga gars yi fi ñu toll nii opposants yi ñoom ñoo ñàkk fu la ñàkk di di ci mais xam nañ ne lii c'est lu mu bëgg daf koy am lu mu bëgg daf koy am bien vrai que xam nañ ne juge bi lii lay joxe lu tax mu xaar loon nit ñi xaar bu yàgg bi. ah mais euh, pour pour pour warloon nit ñi pour warloon nit ñi mais ñun dañu woote appel di wax di wax euh, kilifa diine yi ñoom ñoo war a jóg ñoom ñoo war a jóg kilifa diine yi ñoom ñoo war a jóg wax ci lii. parce que lii mënul continuer mais moom du du gouverner incha allah suñu suñu bakkan bi suñu ko mayee moom du gouverner ci jàmm def na li ko neex mais du du gouverner ci jàmm. du gouverner ci jàmm. yaakaar naa loolu ci am benn jafe-jafe. jafe-jafe bu ñu ci am ñu assumer ko suñu responsabilité ñu dugg ci biir kaso yi moom dina tëj ba doyal Macky Sall dina tëj tëj tëj ba doyal loolu man maa ko wax man maa maa wax Macky Sall dina tëj ba doyal